mbokki taalibe yi mboolem suñu kilifa yi fi teew yi noo ngi sant yàlla ñu ngi jëlee ko di jëlee ko ñaanal suñu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg ci loolu wér sàkku ci mboolem fi teew ñëpp ñu ñaanal ko bàyyi naa ci Sëriñ Tuubaa yàlla na ko yeggale ba suuf leneen dañ am borom mu ne baax sëriñ Cheikh jëm mu yàlla dogal mu toog ci bopp njaboot maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom ba la ko ba lépp lu yéene ngir liggéey ko maam yàlla na ko yeggale ba sumbalee te ñaan loolu di siyaar bu baax kilifa yu baax yi fi teew ci biir jotaay bii mooy njabootu sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim njabootu maam Cheikh ak mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo bàyyi ko kër maam Amadou Baro ak mboolem ci teew ñëpp nuyoo yi nag ak siyaar yëpp dañ koy teg ci ki ñu seen ci jotaay bi muy soxna maam Marème Mbacke moom Cheikh Mahamadou Fadal ànd ak sëriñ Abdou Aziz Fall moom Cheikh Mourou Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall maam Ndiou Guèye danañu mën a jot ngeen nuyoo yi ci mboolem kilifa yi fi teew yëpp di seetlu bu baax sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Cheikh Thioro ñu toog moom sëriñ Baara euh, beneen ñu daal di seetlu baax sëriñ Ahmed Saloum Dieng ci liggéey bu am solo mi ngi liggéey sëriñ Touba Cheikhoul Khadim waaye mboolem joroon bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp mboolem ñi nga xam ne dañoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall bi liggéey yàlla te ki ci jiitu mooy Serigne Babacar Lo mi borom jotaay bi Serigne bi ñu loolu yëpp. na rek koo xam toog ci jotaay bi li may wax danañ ci mën a am seede am na jotaay koo xam ne ñi jàkkaarloo ak moom te am na lu ñuy fàttali muy. jotaayu sëriñ Cheikh Lo bii ak jotaayu sëriñ Modou Faram Ndiaye rek toog di xalifa sëriñ Ahmadou Ndiaye ndax loolu la moom fi xarit waaye mboolem ñi am gëstu tuuti ci gannaaw suñ kilifa yu baax yi ci jël kàddu sëñ Ibrahima Faye loolu maa ne di jàmbaar doo xamante ne bii lu bëri bi ngeen ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall tas na ci àddina lépp muy gëstu waaye ku xool ñaari jotaay yii jëm yi toog sa xel dana dem ci jëm gi Cheikh Ibra Fall keroog bu Sëriñ Ba wàccee fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tàmm yabal ko ndaal te Sëriñ Ibrahima wax ko léegi mais itam dugg côté jàngijoon dugg foofu jubloo foofu ñuy wax nga xamante ne bii fan la Sëriñ Babacar Lo joxe ko ko waaye fan la Sëriñ Ahmadou Ndiaye ñaari moom itam ànd ak maanaam Cheikh Ibrahima Fall ñuy benn mbokk di benn mbokk di benn askan kon jotaay bi ñu ngi fàttali bu bëree bëree bëree bëree di seet a xam ne ko Cheikh Fall ci teew lépp nag sëriñ Tall xale Cheikh Mbaye Fall la ñun jotaay bi ñu ñaan yàlla ci loolu la boo leen njabootu maam Cheikh Mbaye Fall di sëriñ bi tàmbale ko sëriñ Assane wala sëriñ Matou Assis Fall moom sëriñ Mourou Aminta Fall teewal ko sëriñ Mourou Fadil Fall ak sëriñ Moustapha Fall Mbar ak sëriñ Assane moom sëriñ Cheikh Fall Baye doon teewal ko sëriñ Cheikh Ndigal Fall ak borom njabootu maam Cheikh Mbaye Fall yëpp xam naa waxtaan bi nag euh, bett na waaye nag lëg moom boo ko sànnee jëm lay defar na affaire li ñu fi indi nag ceeb ba fàll kon képp ku fi ñëw war nga ngànnaay yi na ngay ngànnaayoo mooy waajal seen jumtukaay yi buñ ne lay jugal dem gawaaru rek doo delluwaat kër maam Cheikh daanaka ne bu ngeen gisee may yaakaaroo sax bu saale bi nee na bëgg sëkkal kare yi taxut ñu ne ko lu tax mu ne damaa xam ne bis dana jot sëñ Bamba ne yenu leen te yal nañu sa sëñ Bamba doom yal nañu sëñ Bamba gat doom bu tudd tamit Cheikh Rafal ngeen moo a bàyyi sama karo ëllëg ko mu sëra bii looloo na ma waaye ku ko ci bërëb seen maam bi ne boo ko déggee yu moo tax lu mu bett bett euh, a fexe ba li ñu ba gis ñu def Cheikh Rafal ak képp ma nag suñ dañuy tàmbale rek ca bam bàyyi ko bi ay bokkam ñëw bu teg ko Serigne Touba Cheikhoul Khadim fu nekk jaar na fa ku ne daje nag moom waaye ki ko taxoon a juddoo Serigne Touba su fekkoon ne xëy na ni ko gars di a dikk maam Cheikh Ibrahima ak njëriñ xamoon nañ leen ko jëm ndax maam Ahmadou Roqee li ko jur maam Roqee yaa Njaay ko jur ak maam Amar Fall ko jur ak maam Soxna Balla Njaay xamoon nañ seet maam Sëriñ bu Njaay bàyyi Sëriñ Balla Fall bi daal su ma sànni gën maam Sëriñ bu Njaay aw ba ngay daal loolu

moo tax foofu kenn ñu ko denc ca ñeneen kër Saali moom maam Amadou Faram Faye sëñ Sidi di jàmbar fekke woon na ko Allemagne ma signalé dara bi mooy a maam Amadou Faram Faye tëdd bi yàlla dogalee nag maam Seydou Ndiaye mu ngi tàmbaloo Cheikh Ba Fall moog Serigne Amadou Roqee teg ca maam teg ca maam Saliou Fall amoon na lu jigéen bu ñu wax waaye bi yàlla dogalee comme seen bàyyi daal teel a génn àdduna mooy maam Ahmadou Fall Roqee booba Cheikh Ibra Fall tout tànk la ci saa yi ba mu liggéey ba maam Seyni bu Njaay liggéey nag ba noppi mooy la ñuy wax muuru te la ko mag ñi ne Seyni bu Njaay ñoom Njaay Fatma ak bokkam yooyu nga xam ne ay rakkam lañ ne Seyni bu Njaay kat war nañ koo wutal fu mu àggaleb ñu góor ñu jox ko góor gu jox maam Issa Alima Diop mu dëkk dëkk mu jox beneen Diop mu am ca maam Assu Diop mooy saatum maam Seyni bu Njaay moom Cheikh Ibra Fall ñoo bokk ndey te bokkuñu baay moom Issa Alima mooy baay maam Issa Alima moomee nag ba mu yoree maam Seydou Ndiaye te la am benn doom bu jigéen bu ñu wax maam Assou Diop mooy caatu maam Seydou Ndiaye maam Assou moom ba ma tëram kër Serigne Darou Assane Ndiaye la ñu doxal sa am te Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Modou Ndiaye Assou Serigne Modou Assou Ndiaye caat la soxna Boussa Ndiaye soxna Boussa Ndiaye lañu doxal Serigne si Abdou Mbacke Mbacke ci sëñ Bala Mbacke gannaaw si bi la ko jox Serigne ab tabax loolu boo gisee man ay taale jotaay bi ngir ñu xam ki ñuy waxtaane moom mooy kan ci seen waxtaan ah, ah. hmm, hmm. ah. ci kanam ah waaw waaw d'accord maam Cheikh bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor daara waaye nag daara ju amul daa moom Cheikh bu rab fii maam Cheikh gannaawutoon am njàng gannaawu gannaawu am njàng ndax bu fekkoon na loolu la du joxe ay doom ñu sëriñ Aliou Fall moo sëriñ Assane Fall sëriñ Ablaye Ngunda Fall maa ngi ñaan yàlla bu yàgg ci loolu bi Ngunda Sall liggéey bàyyam bokk ak soxna sëriñ Abdou Ngunda moo ma ne bàyyi moon jaay laa moo ko ne maam Cheikh bu ma saa ñëw suñu daara fekk fa téere danaa borom ku moom lii borom ne ceeb la mu ne ko moom lii borom ne ceeb la ñetti yoon mu ne bëgg a xam ne ci biir ba nga liggéey seen baax mun baax waaye Cheikh la teewul njàng de waaye day jàng de comme borom xam-xam yaa ngi toog nag li ma duñ ko wax xam nañ ko danañ maam Cheikh daana wax ne jàng baax na lool ndax ku jàng loo gis xam ko xam naa kam koo wax nag du ma wax fii ci jotaay bi dafa naan la diw boo xam ne ci yoon bi la bokk doomam moom Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall woo ko mu ñëw mu laaj ko kuy sa bàyyi mu ne ko diw mu ne ko xëy doom kon da ngeen jàng ne ko waaw ah, da baax na lool ndax kuy jàng loolu gis xam ko waaye nag bi yàlla dogalee mu ñëw Mbàkke Kajoor du ma wax sax ba mu yeeyee koy dem dara damay wax dañ Mbàkke Kajoor bu njëkk ga lii may nettali nag Seydina Abdourahmane Lo moom moo nekk ni Cheikh Moudou Fatma Fall te Cheikh Moudou Fatma Moudou Fatma ñu ko jur ak Cheikh Ibra Fall ay dooy bàyyi mu taal loo Ibra Fall fay kumba jox ko Cheikh Ibra Fall tudde ko moom tekki Cheikh soxna Mati Fall bàyyi na ko Cheikh Ibra Fall bala dina bàyyi ak dina nga ma wax na ma keroog bi soxna roxtee Fall dina gis Moudou Gueye Awa Fall dem dara sama nee ko dooy bàyyi nee na ma Cheikh Ibra ko wax may digg ci njëriñ xanaa kii doy na ci fal sàmm ñu ne ankay kii sa sëtub Modou Faat ma ak sëriñ Kouma mu kii maa ko jur ndax tayam maa ko jox Babacar Mbaye bàyyi bàyyi kat ndax na maa laaj ay barkeem ma laaj Ahmadou sama mag ne ko almati ma ko si sédda woon ne ma roqee Faal sa moom moo ko yóbbata laaj kii Modou Faat awa Faat mu naa ñu ne leen Seera Faal joxal na ko kooku mooy sa moo ma wax lii nga wax moo ma ne bi maam Saliou Fall wàccee liggéey ca daawu faxoo te Cheikh Moudou Fall la ci ay loxoom la maam Cheikh Ibrahima Fall wàccu liggéey ci ay loxoom la Serigne Moudou Safa Fall wàccu liggéey ci ay loxoom la Serigne Saliou Fall wàccu liggéey Cheikh Moudou moomu nee na Serigne Saliou Fall la dama laa a dégg bu lu ma la jur a tax dama laa wóolu danaa la wax waxtu wi nga xam ne ci lay génne àddina soo fi ñëwee waxtu sàngam fekk mu tëdd wetu càmmoñ jukk sow da nga xam ne waxtu bis boobu ma jëlee da nga wóolu mu jublu penk waaye waxtu woo ñëwee fekk mu jublu penk te nekk dajoor na nga xam ne te tawat soo ca laay dem na nga fa toog ba ma dem nga ànd ca ñamay denc looy doxe nga door ko doxe Cheikh Moudou nee na dégg naa bi sax taw suñu saa yu faral nee waaye bi ma ñëwee fekk ko mu tëdd wetu sow ma laal ko mun a xefet na ma xanaa kooku du seet ma ne waa mu ne ma doom jotul jotagul bu dee la ma la waxoon ne nee na ma dégg nag bis sawat sa xaw naa métti nee ma ñëw fekk njaboot gi ma laaj ne ma sa bàyyi ci biir nee na ma dugg si fekk mu tëdd wetu ndi jóg jublu a xewet na ma wax xanaa kooku du seet ma ne ko mu ne ma waaw góor doom defal la ma la na maa toog sama borom dogal ba sëñ Saliou wàcc liggéey ñu ànd ci ña ko doon yóbbu Touba ba ñu ko yóbbu Touba nag teguñu ko ci oto dañ ko doon ñamal bàyyi naa Fall te daalu xafóor Maxime Aline Badara nii ñoo moo ñu wax nañu sëñ Saliou Fall tegu na te ñëpp man aw xibaar biñ egsee sëñ daaw Abdourahmane loo ko taxawu waaye sëñ daal yaa ngi nekk sëñ bi jaaraan ma nekk sëñ bi guddee loolee am na sax lu ca xew sëñ seet loolu dañuy def bu ñuy gas bàmmeel bi xaalis ko sëñ sax mbay yaaram moo man man ñii di wax ak yow sama yaay mosu ñu faat wan na ma te fukki mbaam te la xam ne ko ba noppi Cheikh Mourou Fall ma wax ak na ma na ma yow ku mu ne ma teekaa jaar si Dame ko nee na bi ma ko jub si Dame mu jub ma moom daan def na ma Cheikh yegg si nga mën a kaw mu ne ma tey sa bàyyi bu Cheikh Rafaal ak a gore ni mu jaaxaloon waa àddina ni mu jaaxaloon waa àllaaxira Cheikh Abdourahmane loolu daa may wax waa àddina lool waaye mu jaaxale waa àllaaxira laaj laaj bi mu ne loolu waaye toogal ma laajee la biir na laa nekk li sa bàyyi mu jógee ko wax mu ne ma toogal ma laajee la biir sa bàyyi kat Cheikh Rafal bu mu dikkee fa la mu fekk waaye lii dee suñu daam Abdourahmane loolu nee na ku gis Cheikh Ibra Fall benn waxtu koy gis muy waxtu fajar ndax lu mu yéen liggéey ba guddi jot maam lu mu yéen liggéey ci bëccëg bi day bay bu guddi jot mu roj ko yi nee na bu ko rojee ba mat mu jël goj bi ak baag bi rot ndaye nee su noppee mu tëral goj bi jëmale ak sëñ daam nee na waxtu fajar de fekk fa ngay gis Cheikh Ibra Fall ëpp bi saate suba la waxtu woowu kon xanaa suñ sëñ Cheikh Lo mooy lan suñ Moussa Kane yéen doon liggéey gaa yi nelaw ba naan kuré ba day gën a naan kuré boo fa xewal daawul doxee Cheikh Ibra amul jot sëñ daam nee na ku gis Cheikh Ibra Fall waxtu fajatu la gis ndax nee na lu mu yëngoo liggéey mu roñ ko ba mat mu root nday ci comme fees bu nëppee mu tëral goj bi di bana indi ne waxtu fajatu fenk fa ngay gis Cheikh Ibra Fall kooku gisaat su ko def waxtu woowu sëñ daam nee na am na bis nag sëñ Tuubaa yor ab jàkkam jàkk mooy bant yi mag ñi yor bis na ñëw ba tolloog suñu bunt bi naan bëgg dug leen taal ndax jàkk jot na nee maam ci fajar nee na bi mu maa ngi dégg ci lam ñu Cheikh Rafal maanaam sëñ Tuubaa bàyyi doomu jàmm yi li ngeen la sa war a wax jël bi dana bàyyi ngeen di wax booba seen maam yett te mooy bunt bi ñuy waxtaane tey mooy xëy moo tax Cheikh Ibra Fall woon gën jàng joxe gën julli maaloo gën gox sama maam Cheikh Ndao ko wax ñu ko fekk bi nii julli ko teewoon ci njëriñ suñu ñu ko fekkee mbaa Sidi Bay fekk foofu ñu toog gën jàng joxe gën julli maaloo gën gox sama maam ko waaw maam Cheikh daal nag wax sëriñ bi loolu nee na sëriñ bi wuyu ko nee na ca ñaareelu ëllëg sa nee na mu tombewaat sëñ bi i soññee leen daal jàng ko mu ne ko mbàcc bi da waxoon naa la a bàyyi doom bi jàmm li ngeen di wax te wax ni ñu la sa borom kër yi te nga bàyyi li ngeen di wax nee na ñetteelu yoon ba nag bi ne wëlbi dajeg moom nee na sa dafa ne teg tax ne sëñ bi ñëw ba tege ko nee na jël sa fanam sot seen diggante maam Cheikh boobu sëñ bi romb ko ci jàmm te jamono boobu nag nekk na wàcc maanaam wax noonu ko bu jàng indi woon sëñ bi keneen waaye leneen li leneen li xam nga mooy lan sëñ Cheikh mooy ne saam Cheikh waxoon ci yéen bi ñoom su doon ngoroon bu xasee mën nañu kenn baxale ci seen ko wax nee na yow su doon ngoroon bu xasee kenn ko mën nañu ko man li ko bàyyi sama ne bàyyi sama bàyyi bàyyi sax yàlla ma sax jàpp suñu bopp ak ah, doom suñu bopp gor gor la doom dafa ma yeewi ma danga ma yàlla lu ma def gën a yàlla maam Cheikh dekk la ba wàcc sëñ daa Abdourahmane Lo nag nee bi sëñ bi waxee loolee doo ngay jaaxle nañ la jaaxle nañ lool nee ba man sax lañ tàmm pour ma laajal sëñ bi li gën a jaaxle moom dama koy tënk waaye si waat bu yàqu lépp ko ngeen man man a nekk Cheikh Fall bu loolu Cheikh nag bis boobee ca la maam si tàmbali na moo tax si daam nee na maa ngi ci Cheikh ma laajee sëriñ li fiy wut li fiy wut leneen a gàtt loolu doon kenn mënu koo amee ci sàkku lu gën a fàll sàkku nee na keroog Cheikh Fall ci àll ba mu daal di wax noonu ko nee na ma daal di jàpp waaye Cheikh Ibrahima Fall ñu xoolal ndekete jéem ko ñu toll ak Cheikh Ibrahima Fall ndax sëriñ daf na ko dugal ci biir bopp maa wax moom ne kuy jëpp la nekk lu sant borom da ngay def moo tax maam Cheikh joxe boppam lépp lépp jël Sëriñ Tuubaa sëñ Abdou Samad nag mu sëriñ soñ moo la ma si daanee ba dana jub wax ci gudd la waaye lañ ko mën a wax ci jotaay te am ci ndigal la lañ di wax nee na ñetti ati tërbiye ci Sëriñ Tuubaa bi Cheikh Fall ñëwee jigéen soxutu jigéen wala maa wax loolu de ndax sëñ Moussa yaa ngi yaa ngi njëkk jëppale sa xol ndax fekkoon nga ay xolom xolom kon ña lay taxal ak ña lay setal yaa xam ne ñu ñor boo gisee maam Cheikh ñu nawoon ko loolu tax waxtu dañ ko dul may waaye gis nga bu fekkee ne gis nga mboolem ñu seqal la yoon moo xam ñi ñëpp ñu liggéey lañ ko naajoo ndax ku toll si Ahmadou ma Paxa ku mu bàyyi xel ba di la wax ne dañoo mën a am seede na laa woon am na lu a na lu nekk ci biir ku mel ne nga xam ne du faat wax bu demee ba jël xalimaam di tàgg ku du julli waxtu am na lu nekk ci biir moo tax Cheikh Fall am jarabuñ ko maa ngi leen di laaj loo xam ne nag dama ciy dimbali saa bopp dimbali leen sëñ bi Thierno Diaw xale bi sëñ Ahmadou Diaw wax moom ko wax maag sëñ Alioune te juddoo leen sama bàyyi sëñ Mat Diaw la sëñ Mat Diaw fa moom na toog naa sëñ Touba toog ci Touba ñaari bàyyi fan jóge bee doxoon sëñ Touba la jeex na ko Mat Diaw ana loo dégg ko wax ni maa ngi si li ma ñëwoon sëñ Touba la dégg ma kenn dina wax dara sëñ bi nga xam moo su leen jëlee nga yaayoo comme ça waaw. kon man naa man naa bàyyi xel su ko defee ba waxtu bi jege na te loolu sa taat bu baax ndax jotaay bi moom noonu li nga xam ne li ñu ñor ci àdduna nga gis saxam seen Ibrahima Fall bi ñu ñëwee bi ci ginnaaw seetlu moo tax démb la ñu tàmbali jotaay boobu taarix boobu ñu def ko biir ak li ca xew ci ay animation ci ay daayira Zikrullah ba tax na ñun sunu kàddu tey du mën a gudd waaye dañuy gërëm kuréel Safinatul Amaan ci ndigalal sëñ bi la ñu amee ndigalul taxawal lu mel nii waaye wax naa ne sëriñ bi lii moo ñu ko jàngal ndax wax na ne ci jamono ak i magam ak i rakkam bu daan bind taarixu sëriñ bi dañ naan ko ah, waaye loo def ni maanaam mel ni euh, dañ ko cay dañ ko cay euh, wala leen waaye mu nekk ca te moom nit mi ngi ci quatre-vingt-cinq ans moom mii toog ci toolu xidma la gën a àdduna ndax dëkk ba mu gënee àdduna ba euh, way juróom nekkoon sama maam suñu Ablaye Lo yabal ko ci beneen dëkk moom dex ba nga ni fa la ganee àdduna dex boobu moom la ñuy tuddee juudax ñu koy dàkkante la moom yi kon ci teg toolu liggéey mu ci la gën a àdduna kon ñu ñaan mbooloo ñu ñëpp ñu ñaan ko yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér ndax kat xilaafam na ni jig nañu jig nañu mooy lan fiñ fi àgg ci liggéey seen tubaab yaakaar naa ne bu fekkoon ne dañ doon dañ doon waaxoo léegi ndax ak dogoom ak matam lépp da koo yéene Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra dafa yéene lépp Sëriñ Tuubaa te nag Cheikh Ibra lanti noor la du tee déglu bi moo tax loo yàlla nga may sant bu baax di sant mbooloo ñi ma àndal ndax ñoo ma def coordinateur bi depuis at dañuy liggéey ci biir si daale de fu nekk jóge mi wax dëgg yàlla ñoo mujj sax indi waa yi bii ci biir neeri Cees bii fa la ñuy defee xéer bi nga xam ni lépp lu ñu waajal ci bis bu gan am na fu ñu leen dalal yi ñu ngi déglu bu baax a baax a ndax njabootu sëñ Tuubaa bi teew na njabootu Cheikh Ibra bi teew na suñu Cheikh naa Mbacke mu sëñ Murtada mi ngi fi teew euh, suñu Bachir Mbacke mu suñu Cheikh Thioro mu sëñ Baara mi ngi fi teew te dina jël kàddu léegi seen tur suñu Aziz Fall mi sëñ Modou Moustapha Fall mi sëñ Cheikh Ibra mi ngi fi suñu Cheikh Ndigal léegi la fi jaar Euh, suñu Mbàkke jenn mi ngi ci suñu Aziz Fall mi suñu Mudaam dafa mi ngi ci ak rakkam wax dëgg yàlla euh, liñ ci doon wut lépp am nañu ndax ñëpp teew nañu dëkk mat na fa ñëpp teew nañu di sant conférence euh, Oustaz Ibrahima Faye docteur Diouf ñu ngi lay sant ci intervention yu am solo yi docteur Saliou Salam ñëw na léegi boo kilifa yi jëlee kàddu ba noppi moom dina yéeg euh, bu waxtaanee ba noppi nag sëriñ bi daal di jël kàddu bi nii nag la dox bëgg a doxalee waxtaan bi dinañu jox madame la ministre mu wax ndax fii ne euh, dinañ dinañ ko leeral yëpp sant nañ leen madame la maire bi di soxna ñaanatam ñu ngi teewal sonn bu ñu leen di tàmm daal si la ah, li mu waroon a def yëpp def nañ ko ñu koy sant di ko gërëm di sant nag bu baax suñu xarit suñu nit di sama mag ah, di madame la ministre Ramatoulaye Guèye su ba la fi yónnee délégation bu mag ndax moom daa bokk ci kër gi ndax day wóolale sama mag doon jëflante ñoom te kooku euh, jóge fi di soxna Fatou moom mu doon xaritam moom doon suñu xarit ñun ñëpp ñoo ngi koy euh, la ministre nag bis sa bis na ndax Thiès yaay porte-parole du gouvernement hmm? yaa fi teewal président de la république Macky Sall doon porte-parole ci wàllu liggéey bi sa def ko ci bis ñu koy seeral sëriñ bi ñu def ko ngir si laata muy egg si ñu sat suñu Ibrahima Faye nii daan jokkoo suñu diggante ak moom waaye lii lay soxna si jigéen ñaa ngi nii leen lay boole ndax ci liggéey Cheikh Bara lañu loolu boo fa demee jaay ko ci jën yaag géej gi yaag keccaf yu euh, sew lépp suñuy soxna la suñuy bàjjale suñuy lépp fu ñu ko jógee liggéeyal sa ca ca ba rek jox sëñ bi rek millions yi ñëwul kër sëñ bi te xeeb ko li ci ëpp jigéen ñi ñoo koy liggéey ndax ñoo jur yi ñoo jur jàmbaar yi ñoo jur mag yi ñoo jur ndaw jox moom sëñ la la ko jàll ñoo ci gën a gaaw mbokki taalibe yi rawatina waa kër Cheikhul Khadim maa ngi yëkkati sama kàddu ci Touba waaye ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha al Khalifatul Hamid di ñaan suñu borom mu yokkul ko dëbb ko kattan wér fan wu gudd ba mën a yeggale liggéey yëf Cheikhul Khadim bii di ko am pësteef di ko am yitte liggéey yëpp ko moom ma koy ñaanal di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko ak mboolem waa kër Cheikhul Khadim bi di jot li ay kàddu ak ay nuyoo ak ay ziyaare jëme ko ci njabootu Serigne Babacar Lo li nga xamee ni ci njaboot gi la waaye jaare ko ci kër gi nga xamee ni kooku kenn mun na tudd Cheikhul Khadim te tuddoo ko muy Cheikh Ibrahima Fall murid bu am solo murid bu jàmbaare murid bu sagal yoon bi te leeral ko ci pastéefam ci taxawaayam àdduna bépp gis ko ba xam kan mooy Cheikhul Khadim ba ñëpp bëgg la tax waaye kon ñu wax lenn ci Cheikh Ibra ci jëfinam ci taxawaayam ak li nga xam ne ni da ko représenté ci yoon bi kon waa kër Serigne Mame Babacar Lo Serigne bi mi ngi nuyu xalifa bi Serigne Cheikh Ndour di ko jaajëfal di ko sant bu baax a baax ci initiative bi ak xalaat yi ak taxawaay yi nga xamee dafay dundal diine ab xol ngir doomu aadama yi képp dañoo mar rafle wala mu jafe wala gisuñu ko kon nag képp koo xamee ne rootal nga leen ndox moom yi ñëw andil leen loolu ak cant wér a wér lay doon ab julit fu fekk wala foo ko fekk rek war ci moom moo xam ci wàllu diine la moo xam itam ci wàllu xel la moo tax su maam di baax joo ji leeraloon ñi ne sëriñ sawa ji nag di sëriñ Babacar Lo ak ni demee di xamee ni du mat a bàyyi xel la te ngeen professeur wax na ko ci waxtaan bu am solo wi nga xam ne ni wax na ko kooku ku mat a bàyyi xel la ndax yàlla ci boppam dañoo jàngal daal ni wëdd ko wëdd ko fil kitaab jàngal ci tam wëdd lu dara kon muy loo xamee ni farata la ci képp koo xamee ni borom ay qualité la borom jikko la boo xamee ni jàngat ko dina am solo lool pour nit ñi man caa roye defar seen tay defar seen ëllëg lu am solo ngi noonu te loolu mooy li nga xamee moom la ñu leen digal yàlla wax comme ni ko xam-xam yi waxe laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab kon loolu lu am solo la ci ñu wàcc bi moo tax aaya bi wax ne lii nga xam ne ni commission bii def nañ ko muy commission de pilotage li nga xam ne ñu ko jiitee ci sargal bu baax a baax euh, sëriñ Modou Lo Gueye mbaa sëriñ Modou Gueye Lo ak mboolem ñi nga xam ne ni ànd na ak ñoom ci taxawaay bu rafet bu am solo bii nga xam ne ni woote na ko muy am solo lii nii du hasard alxuraan da nga jàngal ni maa kaana hadiisan yuftara may leen yëngu yëngu yi waaye dafa fekk ni njëriñ dafa nekk am solo lool ci doomu aadama ngir ñu mën cee jëriñu kon looloo tax ñu wut lu mel nii waaye du folklore def ñu ko ngir àdduna waaye dañ caa def ngir bëgg nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne yii rek moo ñu fi indi te moo ñu fi bàyyi ndax alxuraan dañoo jàngal ni ëllëg ëllëg dafa indil dikkoore anfaxul muminin muy lu am solo loo xam ne mi ngi ci boppay kon lii nii jataay bi jataay bu am solo la parce que bu fekkee am nga ko war a wax am nga ko war a waxtaane boo xam ne ñëpp mën nañ cee roy farata la moo tax yàlla ne wëtlu wëtlu alayhim naba waskur jàngale leen ah ci média yi ne ba nit ñi mën caa roye parce que loolu mooy gis ci bi nga xam ne ni moom la rasulullah yi ñëwoon yor ay qualité yoo xam ne ni nit ñi dañ cee war a jaar roy ci ngir seen tey baax ngir seen ëllëg baax ndax foofu kat jikko ju rafet rek moo fa am solo la yonent bi loolu la ñëwoon ngir di ko jàngale kon mu mel ni moom la Sëriñ Tuubaa yare moom la Sëriñ Tuubaa yare nga xam ne moom dama ñëw ay wur rek ko ko jóg waaye àdduna moo ko benn naar gis na ko ne ko li nga gis nga yor ko ci yiwu doomu aadama àdduna bépp kenn ku nekk mën na cee jël wàllam tamit jeex Sëriñ Tuubaa ne ko moom laa gàttal waa waa suuf waaye waa ak waa asamaan bi yëpp boole ko ci nga xam li mu yore ci aw yiw bari na lool yiw boobee nag

mu Muniru daal ne kàddu yi muy jël mooy sant yàlla bu baax santaat sëriñ Touba bu baax ndax Serigne Touba daf koo wax maamam lu waxul maam ñu bari defal ko maamam kon kaddu yi ñu yëkkati kaddu yi cat Serigne Touba la yu jóge ci alaaji Muniru ngir lan li maam Serigne Touba waxoon ne alaaji Ahmad jóge baro mëne ku mu taxawu nga dem aljana kon loolu mooy suñu toogaay ci place bi waaye nag mbiru Mame Mbaye Lo ñoo ko moom suñuy mbir la ñaar fukki at ak juróom benn foo ko def fa nga bokk kon ñun bu ñu ñëwee fii dañoo waroon taxaw fii sëñ Modou taxaw di ko di liggéey di jàppale waaye mbir mi ñoo ko moom kon sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di gërëm ñëpp suñu waa kër maam yi fi teew te ñu fekk leen fi waa kër maam Sëriñ Touba yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen ziar di gërëm waa kër maam Cheikh Rafal it gis nañ leen Abdou Salaam ñu koy ñaanal moom it Saloum Dieng di ko wax ni nit julli nga julli nag biral la rek mbaa yellu foo taxaw rek yëg nañ loo defit boo jàppee ni yow yaa ko def déedéet ñépp moo ko defal bàyyi nañ ci xel bu baax jàng yàlla yàlla barkeel la yàlla yàlla dolli sutura leneen li ci alaaji wax day wax ni ku ne xam na ni sëñ Cheikh xëy na xol bi rek a fi nekk waaye kàttan new ndax wéré di am na bageel am na waaye nee na mi ngi ñaan ci yàlla bésu tey bii nee nañ sëriñ mambay loo tey mooy euh, ñu ngi ci anniversaire yi téeméeri atam alaaji mëniru ne téeméeri at yooyu yal na ko yàlla yokk ci ati sëriñ Cheikh ñu ko commencé ko tey ak bépp jullit bu fi nekk yal na ko yàlla def ndax sëriñ Cheikh kat maanaam delloo na batt ca batt ca ca ca daal ndax li sëñ Modou wax mooy dëgg lii mënees nañ ko def bu fekkoon ni moom bàyyiwul woon xel démb mënees na koo def dañuy invité waa kër Alaaji Fan Jigéen rek ñëw teew waaye daf na leen dem leen ba ca kër ba ndax lii ca penc ma laa jaman nañ ko njëkk a def soo ko ñëw fii kon nag sëñ Cheikh yàlla na fi yàgg lool ak njaboot gi sëñaam di yàlla yàlla yow taxawaay bi euh, rafet na kontaan nañ ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dafa mënu woon a bañ a am rek moo tax nu waxee ko noonu alhamdulilahi rabbil alamin conférencier yi gërëm nañ leen kaddu yi nag kaddu yi gàtt loolu ndax professeur Saliou Salam mi ngi xaar te moom dafa bokk ci ñu war def waxtaan principal yi te mi ngi bëgg a naaj kaddu yu sant yàlla la ci boole gi mu boole jotaay bii muy jotaay boo xam ne dañ fi feeñal liggéey yu yàlla dañ fi fàttali liggéey yu yàlla ndax suñu borom moo ñu digal ñuy fàttaliku ndax fàttali day njëriñ jël ñi kon jotaay bi jotaayu fàttali la jotaayu dolliku la jotaayu barkeelu la ñu ngi sant yàlla ñu ci boole di sant Oustaz Mouhamed Lo bi nga xam ni moo njëkk a gis boole ñu ci te moom suñu wóolale ak moom man na xamee ak ndax man ak moom ak Oustaz Mouhamed Lamine Fall mii ñoo bokkoon di jàng ci daara Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Ibn Khadim Rasoul bokkoon benn classe boobu ak ngay mi ngi fi mi ngi fi mi ngi rafetal ñu jàmbaar di ko am yëngatu di ko am liggéey di ko am taxawaay waaye loolu yëpp day feeñ ngi rek bis bi weer ci ginnaaw Oustaz Mouhamed sàkkoo na ci man wax ko Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Xaadimu Rasuul porte-parole bi mu ne amoon yéene na ko tubaab yëngu ko waaye demal ko jëm na ko ñu génn rek dafa toog te dafa si Mountakha dafa wóor woon ngir ñu yu weesu nga xam ne sëñ bi dañu waroon moo seen njaboot suñu Touba gi loolu moo bi ma ñëw fii sànq a naa ko xamal ko ni fi laa jëm mu ne waxal waxtaan ma dugal sama seen yéen lu jëm ci bis bi ñu ngi leen mu ngi rafetlu jotaay bi ndax jotaay bi ku fi ñëw xam ne jotaay bu Sëriñ Tuubaa la ku fi ñëw xam ne jotaay bu sànn ne jotaay yi te loolu mooy jéegul Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp loo xam ne dafay yëkkati lislaam di feeñal lislaam di jokkale julli yi di woote jàmm loolu mooy jotaay yi nga xam ne dafay wér Cheikh Mouhamadou li ma wax mooy rek ñaan sama ñaan boobu ñaan boobu mooy yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm nit ñi yal na yàlla jàmm président Macky Sall kon nag boobu jàmm ko a jóg benn ko tax a jóg fii na tax a koo jóg ndoxu loolu li nga xam ne benn jur gi kon nag Oustaz Mouhamed yaa mboolem seen njabootu seen baax a ñu ngi fekk seen kóllëre ak yéen leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a dëgëral gën leen a sàmm gën leen a taxaw ba ni ngeen bëgg ñu feeñal seen liggéey maam seen liggéey maam feeñal liggéey suñu baax feeñ liggéey seen baax baax feeñ kon mu sàmm rek ak nga la mu kon nga leen ngir weer boo fekkee yal na koo dal yal na koo taxawu yal na koo rafetal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man nag xam nga li ma santoon ma wax ci ma def ci ab gëstu mooy concept xidma dans la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba daan lan mooy xidma waaye ginnaaw waxtu bi xam na dañ ma ñaanale rek. naa naa ko tënk tënk rek ci fukki minute su ko defee mu nekk suñu barkeel xëy na nag li ma ci bëgg a wax ci gàttal dama bëgg ñu xam ne du baat bu bees baat la boo xam ne yàgg na lool benn ñu xamit ne buñ ko kenn jàppee li ñuy wax vocabulaire wala ab mufrada wala ab baatu kese déedéet concept la concept mystique la baat la boo baatu science la ci subitu ci tasawuful islaam yi depuis huitième siècle hégire baat boobu judd ci tasawuful islaam yi lu mat fukki suufiyaanke ak ñaar jël nañu baat boobu jëfandikoo nañ ko ci seeni xalaat ci tasaw ci seeni théorie Sëriñ Tuubaa nekk fukkeel ba ak ñett ba tasawuf juddoo ba ci Sëriñ Tuubaa benn méthode la am benn manhaj la am manhaj nag science yépp ci bokk yem mooy xam-xam bu ne yoon wi muy jaar ba mën a xam la muy jàng mën xaj boobu mboolem sufiyanke yi moom ñoom la bokkoon bi sëriñ Tuubaa ñëwee radiyallaahu taala moom itam mu jël baatu xidma nekk fukki la ñett ci boroomi xam-xam ci sufiyanke yi jël baat mu jëfandikoo ko waaye nag weneen jëfandikoo wu bokk dëkk ñëweesu woon ndax moom ba mu ko jëfandikoo du ko wëlbati def ko méthode mu def ko manhaj méthode de pensée méthode de travail méthode de comportement mu tënk léppam ñu ne ko lu ko waral mu ne ndax loolu moo tax moom mu ñëw jamono moom xidma boobu waaye ci ba mu ko na mu ko jëfandikoo ci wax ak ci comportement ak ci mbindam ak ci jëfinam lañ ca mën a dindi téye ko muy lu wér ذلك أخرج هذه المسجد النبي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأصدق ربي أن يحضروني asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen bokk jullit yi yéen bokk taalib yi sëriñ baa maa ngi wax ci turu Diop nga xam ne moo fi nekk di xalifa Cheikh Ababacar Lo noo ngi ñaan sëñ Mbaye yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam sëñ Mbaye Lo su moom defal ko ci lu kawe njortam ci barkeb man Cheikh Fall Baye Mourou Dine di nuyu bokk taalibe yi yëpp di am mbégte ci taxawaay bu réy bi nga xamee ni commission bi nga xamee ni ñoo yor wàllu liggéey bi amal nañ ko ngir jëmmi si Ababacar Lo te dara ko lu feeñal euh, maanaam jëfi sëñ Mbay ak ay jaar-jaaram mayam ak turam ñoo ngi ñaan liñ ci séentu yàlla déggal leen ci lu kawe seen jor ci barke bi Tuubaa doy maam ci yàlla Fall di sant it nag bokk taalibe yëpp di jiit njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xamee ni teew nañ fi te Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëñ Cheikh Thioro moom sañ Baara jiite ko ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne teew nañ ci moom Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Diène ak mboolem këri diine yi rawatina waa kër si Baro jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo dëkk ak ñoom te dëkk gi rafet nu taaral jataay ngi ñaan aaju bu fi indi yàlla ko yàlla faj ci barke borom Tuubaa doy Cheikh da euh, bis bi na koo ni euh, liñ ci bëgg a wax lépp du ci xaj ndax jataay yi dafa yàgg waaye nu leen wóor ni sëñ bi xolam sedd na xelam dal na mi ngi ñaan euh, aaju bi fi waaye indi rek suñu moom faj ko ci barke ba mu tubaab doy si abra euh, sant nañ góor ñi sant nañ mag ñi sant nañ daw ñi mboolem dëkk yi nga xamee ne dañoo wër euh, fii ci biir Sénégal ba bitim réew fenn fu waaye bàyyi ko ñëw ngir bis bi sëñ bi yëg na ko ma ngi ñaan yàlla doolu leen kàttan dool leen wërsëg ci barke sëñ Béyloo fii ñuy defal dundam gépp da koo jeexal ci sunu borom dundam gépp da ko jeexal ci maam Cheikh Ibra eh, ni ko Cheikh la jeexale ci sëñ Touba moom sëñ Bayloo eh, jëmm la joo xamee ni ndax dama ko dégg ci aw mu taxan ma takk aw say ma danga takk nga a rëy ma yëg ko ma ni ma ma ne ko Fall mun ma su ma ñëwul woon jamono ak sëñ Bamba duggee sëñ Bayloo rek ma ñu kon kon moom wasaabi ko nal awaloon te ñooña la bokk moom ca góor yàlla yu mag yi la bokk lii firndeel loolu cër bi mu am ci kër Sëñ Tuubaa am ko ci kër Cheikh Ibrahima Fall te amul ñett fan ci kër Cheikh Ibra loolu rek moo lay wan ni moom ab cër li ko àndaale li muy di jébbalu wali la aasoo Quraan la tafsir la mu addam bokki daal di noo ngi di jaane yéen ñëpp leen martawu ñu coono yi di ñaan suñu borom nangu jataay bi te bu koy nangu yàlla naka nangoo na mu toll sunu xol sedd nag guy ku dégg woon sunu baat xam ne sunu xol sedd ndax ki ñoo liggéeyal day xëy ci ba naka ni kon ñëpp takkul Cheikh Baba Kano moomu dafa jeex tàkk ci Cheikh Ibrahima yàlla boole ko ca kuddu yu njëkk yi loolu mooy waxtaan cant yi moom kenn ba tubaal kàlla tubaal kàlla kenn bu ñu yëngu ci lépp noonu waa kër sañ baylu danañ wax ne ba ko sant Mbàkke ci ñëwee mbaa ko sant Faal rek loolu sunu aajo fajo na loolu mooy sunu li jaaw kon am na ko kon bu yemoo tànn la koy auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin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 توفيق من على بركة خادم الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسهل وخلي به وسلم شكرا دائما منتقل سبعا من كل دائما بركة في